salaamaaleykum suma gars yi j'espère que vous allez bien président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye suba ci samedi gi dina jàkkaarloog journaliste yi ca palais de la république am journaliste yu jàpp ne euh, loolu épreuve bu wóoradi la ci cent jour la ñu bëgg waxtaan cent jours yooyu waa APR nee nañu premier ministre bi daal euh, ñoom mooy seen naqar moom mooy seen nitit mooy def lu ko neex nu mu ko neexee ak fu mu ko neexee Serigne Bassirou Gueye mi ñu denk dénk nag moom mooy woo mbooleem DG ñu ñëw def seen déclaration de patrimoine président de la république Diomaye ak euh, maam Diop président assemblée national boo saaganoot ay waxtaan dina am seen diggante ngir xool rëq-rëq yi assemblée national am nuñ koy joyante Alioune Ndoye maire Dakar Plateau nee na mbiri déguerpissement yi ma tàmbali ca kolo euh, ca Sandaga du ma ci buuse saala yaay ndeer danaa ko def ba mu jeex lu ma ci góobe garko ko waaw waa PDS nee nañ euh, Karim Wade dina ñëw mu ngi ñëw bientôt waaw noo gëm naa leen bi paa moom euh, Koupentoum foofa trois cent kilogrammes de cocaïne pure dure lañ fa jàpp ANSD nag seen gëstu bii ñu mujjee def recensement bi dafa am ay gàkk-gàkku ci am ndax euh, président kenn ci guinéen yi nekk Sénégal dafa waxoon ne ñoom guinéen yi toll nañ ci trois millions cinq cent ak lu topp ci biir Sénégal ANSD def gëstu daal ne deux mille étrangers ak lu toftal tuuti moo nekk ci réew mi guinéen malien ñi jóge Cap ver nangam nangam loolu la ñu ne est-ce que seen liggéey bi yëpp taxut suuf ab laaj la yonent ba génnoon Kolda dañ jàppoon ko nee na Macky Sall moom moo bëggoon a yàq diineem ji moo tax yàlla rocc nguur gi ci moom nan ko moytu bon vendredi